waaw alquran àdduna ci environnement alquran ni ni nga xam ne noonu la àddoo ci environnement nin ko tërale fii bi ci njëkk mooy hmm. alquran daf ñuy bàyyiloo xel environnement dañuy bàyyiloo xel li ñu wër hmm. teg lit mbir bu la nee bàyyi ko xel mooy war nga ko jàngat xool lañ ca war a def ak la nga ci war a def waaw alquran toujours soo ko xoolee mi ngi ñuy bàyyiloo xel li ñu wër moo xam ngelaw yi la moo xam ndox mi la moo xam géej yi la moo xam dex yi la moo xam gàncax gi la moo xam bàyyima yi la moo xam sax doj yeeg montagne yi la moo xam jant bi la moo xam weer wi la moo xam guddi gi la moo xam bëccëg gi la di ñu wax njariñ yi ci nekk waaw di wax njariñ yi ci nekk di wax ne yàlla dafa tàggat yooyu yëpp nag pour doomu aadama waaw kon doomu aadama war a xalaat nag ci loolu na ci doomu aadama xalaat gis nga aaya bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa mi ngi ci wax ni allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda wa anzala min alsamaai ma an fa axraja bihi min alsamarati risqan lakum mhm. wa saxara lakum alfulka li tajri fi lbaxri bi amrihi mhm. wa saxara lakum al anhaar wa saxara lakum alchamsa walqamara daaibayni mhm. wa saxara lakum alleyla wannahaar wa aataakum min kulli ma saaltumuh wa in tauddu nicmata allahi la tuxsuha kon fii tudd na fi ay euh, mbir yu bëri yoo xam ne mi ngi ci environnement bi te bu ci nekk wa saxara lakum ngay waaw kay <laughs> yooyu yëpp mu tàggatal ko doomu aadama <laughs> pour mu jariñu ci waaye te bañ koo yàq ndax noonu lañu ko digale woon mm-hmm. kulu washrabu wala tusrifu mm-hmm. lii nag jariñu leen ci lekk leen ci naan leen ci mm-hmm. waaye bu leen ko yàq nag waaw gis nga fii mu naan inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi leyli wan nahaar wal fulki lati tajri fi l bahri euh, bima yanfau nnaas wa ma anzala allahu min alsamaai min main fa ahya bihi l arda bada mawtiha wa basa fiha min kulli dabbatin wa tasrifi riyah wa ashaabi lmusaxiri bayna alsamaai wal ard la ayatin li qawmin yaqiluun gis nga fii mi ngi tudd asamaan si di tudd ndox mi di tudd euh, bàyyi ma yi nga xam ne sax dañuy dox. Hmm. di tudd ngelaw yi di tudd sax niir yi ci kaw asamaan. Hmm. nee na yooyu yëpp mi ngi ko tàggatal doomu aadama. Hmm. daal di nag doomu aadama ba mu yaakaar loolu. Euh, da koo def ci fo maanaam na ci doomu aadama bàyyi xel. kon fii nii alxuraan mi ngi nii bàyyiloo xel li ñu wër. waaw gis nga fii mu naan. wa fil ardi qita'un mutajawiraatun wa jannatun min a'nabin wa zar'in wa zar'un mhm. wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan yusqa bi ma'in wahidin mhm. wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil fi dhalika la ayatin li qawmin yaqilun mhm. nee na suuf si boo ko xoolee léegi-léeg nga gis fii joor léegi-léeg fii dekk maanaam suuf si ci boppam nu róowut am na ay wuute yu nekk ci biiram nee na ay toolañ ci yu nëtëx no tool yu naat maanaam waaw mbay mi nee Euh, soo xoolee gàncax gi. Hmm. soo xoolee meññeent yi. Hmm. dañuy nuroo te duñu xaw a nuróo. Hmm. mi ngi mel ni màngo rek. léeg-léeg boo jaaree fi ñu koy jaay dañuy dégg ñu naan la bii papaye la. bu ko bu ko jeexal waaw bi Mor Jaw bëgg. mi ngi noonu. waaye bu ko jeexal. <laughs> bu ko jeexal. <laughs> nee na kon day nuroo te bokkul. xoolal loolu xoolal façon mango yi am yëpp. te yëpp mango lañ koy wax. sinwaanun wa xayru sinwaan. te nee na ndox mi nga xam ni mooy meññal màngo mooy meññal kaani benn ndox bi la koy roose benn ndox mi la. Mhm. mais gis nga bu génnee waaw boo génnee li saf ka gi di wuutee. Mhm. waaw kon mhm. fadlu baax dafa ala baax daful okkul. nee na doomu aadama nag na xalaat ci loolu xalaat ci def loolu. xam ni kooku ko am doole la. kon foofu suñ borom bi ngi bàyyiloo xel environnement bi. nañ ciy xalaat. bu nu yaakaar ni lii. mbir la moo xam ne dafiy nekk du fi mos a jógee rek. nga oustaz bi ngay tudd suuf yi. Mhm. nga xam ne yàlla moo mën a organiser àddunaam bi. Mhm. yaa ngi wax suuf yoo xam ne dafay nekk montagne. Mhm. joor gi nii. nga gis ñoo xam ne dañuy bay mbayu noor. bu ko defee kiy bay bayu noor bi. ñun suñ xaalis bi ñu ciy essence ñoom ñu nuy jaay bu noor bi mais ñun tamit bi ñuy bay ñu koy jaay ñu nekk ci tefes gi. mi ngi noonu mool bi di jaay. moo di dem nappi ñëw jaay baykat bi baykat bi jaay ko hmm. kay jaay kay bay noor kiy hmm. jaay kiy bay nawet hmm. yooyu yëpp bu amul woon nit ñi pour ñu dund échange boobu xoolal ma échange bu am solo boobu parce que borom bi moom dafa xereñ dafa xam dafa xam waaw ki nga xam ne dafa xam leen lu nekk dafa koy defee na mu ko war a defee dafa war a li juróomi baaraam yi rek léegi-léegi ñu naan juróomi baaraam yi dafa waroon a tolloo ñàkk xel di ko wax waaye buñ tolloo woon defe naa pour nga jël dara wala nga lekk sax mën naa jafe borom bi noonu lay bindee comme euh, li ñuy wax euh, leen lu nekk dafay complété leneen leneen la ci des waaw mu nekk lu am solo kon euh, façon bu ci nekk ci suuf yooyu sax dafa am la fa mën a ñor loo xam ne ñeneen mën nañ koo jariñoo waaw kon foofu daal borom bi bàyyiloo noonu fi xel boo xoolee ci alxuraan mi ngi ñuy bàyyiloo xel li ñu wër nan ciy xalaat buñ yaakaar ni rek mbir la mm-hmm. mu ni mu nekk foofu rek ñu bañ cee xalaat mm-hmm. ñaareel bi mooy borom bi mu ngi teg ci loo si doomu aadama nag mm-hmm. li nga xam ni moo xew ci li ñu wër ci ak yàq waaw nee na du kenn ku dul doomu aadama nag ci ak yàq waaw li fi yàqu ndax ba mu koy bind daf koo defan mu rafet baax dara sikku ci maanaam bu ñuy wax naan ba àddunay baax uh-huh. yàlla ba mu ko defee tey muy baax la baaxoon kon bu yàqoo bu yàqoo doomu aadamaa ko yàq uh-huh. loolu lañu ñu alxuraan di wax waaw ndax soo xoolee si mi ngi naan zahara al fasaadu fi l barri wal baxar bi maa kasabat aydi nnaas mhm. li yudiqahum baada alladi amilu laallahum yarjiun mhm. waaw nee na géej gaa ngi yàqu mhm. jéeri jaa ngi yàqu maanaam mooy fii ci kaw suuf fi ñu dundee fi ni fi nekk ñun nee na yooyu yëpp ñu ngi yàqu te dara defu ko dul loxob doomu aadama nag loolu nag yàllaa ko def ngir mbugale leen ko ndax ñoom rek ñoo ko def ñoo yàqal seen ñoo yàqal seen bopp li ma fi li yàlla defaroon waaw kon léeg mu leen di indil lu mel ni ak ñàkk wala yu demee na ki yooyu ñu xam ne ñoom kat li ñuy yàq waruñ ko wan a yàq mhm. waaw ngir ñu mën a dellu wa xoolaat li li ñuy def li ñuy def waaw kay daal di bàyyi yàq même même li ñëw bari sax uh-huh. ñu kal parce que bi foog naa li yàlla wax ci suratu yusufa mhm. ca buur ba inni ara sab'a baqaratin na mhm. yakuluna sab'an ijaaf booba mi ngi jàngal nit ñi lu bu mu bari bari bari bari ba ñu yàq ko waaw yàq moom suñ borom da koo tere yàq suñ borom da koo tere ndax toujours sax li ngay yàq. soo hmm. gisee ca wet di nga fa gis ko soxla. Hmm. waaw moo tax loo bari le bari le hmm. bul yàq. surtout te loolu sax islam ba mu ñu ko waxee kenn xamul euh, yàgg na. waaye suñ xoolee sax ci suñu mbokk yi nga xam ni maanaam ñeneen ñi nga xam ni duñ duñu ay jullit. ci wàllu occidentaux yi. booy xool ñoom. ci côté boobu sax barina ci ñoo am na ci ñunu tane ci côté boobu mhm. dañ ciy gis borom alal yoo xam ni mhm. macha allah waaye doo leen gis ñuy yàq ndax yàq moom baaxul loo bari le bari le rek mhm. bul yàq waaw gis nga fi mu naan wa ida tawalla saa fi l ardi li yufsida fiha wa yuhlika al xaasa wa nasl wallahu laa yuhibbul fasaad muy nettali jëf yi ñooñu nga xam ni duñ ay toppkati yàlla nee na buñ buñ génnee ci suuf si rek commencé di yàq waaw lépp luy bàyyi ma ñu ni dañ koy rey waaw kay mm-hmm. euh, garab gun gis ni nañ ko dagg mm-hmm. nañ ko nañ ko nañ ko dagg mm-hmm. xam nga góor góor garab sax bàyyi ko mu sëqaat man nañ koo wax ndax li ñu fi yàlla indil pour ñu jariñoo ko la waaye nag nañ ko jariñoo de façon responsable maanaam bu fekkee ne euh, ñëw nañ pour jariñu nan góor garab bi nan ko nan nan ko Euh, nan maanaam nañ dagg ci car yi jariñoo mm-hmm. bàyyi ko mu daal di sëqaat mm-hmm. waaye dagg ko ca taatu wanag nga xam ni dootul sax mm-hmm. foofu fa la musiba ma nekk. waaw maanaam yàlla moo ko defar pour ñu pour ñu jariñoo ko. mi ngi noonu mais jariñoo gi mën nga koo def nga am ci lu baax. mais comme man nga am contraire ba mën nga koo yàq. Mhm. jëfandikoo ko ci lu noonu mu jural la bàkkaar. mi ngi noonu. mooy ci xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax naan ëllëg di gis. Mhm. xobu garab bu poñe nit. Mhm. ne dama romb garab gi ni ko danga ma romb rocc ma si doy woo ma woon dara. waaw ak rambatu bu poñe nit. danga ma romb may picc nga rey ma lakkuloo ma lekkuloo ma defuloo ma dara rey ma rek pour wàcc noonu yaa ngi gis. Mm-hmm. waaw ci xam nga bi nuy wax sax. Mm-hmm. ni yàlla dafa bàyyi loo xel doomu aadama. Mm-hmm. environnement bi. dañoo xaw a gàttal tuuti waaye gis nga fii mu naan wa maa tasqutu min waraqatin illaa yaalamuha wala xabatin fi zulumaati l ard wala ratbin wala yaabisin illaa fi kitaabin mubin waaw nee na xobu garab bu wadd moo xam dañ koo dagg moo xam dafa wadd yàlla xam na ko yàlla nga koy bàyyi xel xobu garab woo romb xëcc ko mu dagg yàlla ngay bàyyi xel xobu garab woowu tax nga dagg mi ngi noonu. Mhm. yàlla yàlla xam na loolu. Mhm. kon loolu mu ngi lay bàyyiloo xel ni li ci li ñu wër. Mhm. lu ci man di nekk. lu mu tuut tuut. bàyyi ko xel ndax suñ boroom xeebu ko moom ndax moom dara xeebuwul fa moom moom moo bind lépp waaw kon euh, yaa ngi gis fii ni kon suñ boroom mi ngi ñuy wax yàq gi am ci li ñu wër ni doomu aadama ngi koy yàq waaw doomu aadama mi ngi koy yàq te borom bi dafa ñoo tere yàq googu kon mooy ñaareelu tomb bi alquran kon bi nu bàyyiloo xel ba pare nee nañu nag li xew ci ak yàq ci li leen wër yéen doomu aadama donga du keneen mhm. waaw mhm. alxuraan tamit léeg-léeg sax mu nuy wax ni ah xool leen waaye li leen wër ni mu ni mu taaroo mhm. bàyyi leen ñu xel parce que xam nga nit léeg-léeg ngay gis mbir tàmm koo gis rek ba dootoo xam rafetaayam fekk dafa lu taaru la li ñu wër dafa taaru trop rawat nag gis nga fii mu naan inna jaalna maa ala al ardi zinatan laha li nabluwahum ayyuhum ahsanu amala nee na li ci kaw suuf lépp dama ko fee def ngir mu taaral suuf si moo xam garab yi la moo xam gàncax gi la moo xam montagne yi la yooyu yëpp day taaral suuf si nee na mu bàyyi nag ñoom nag xool nag gis bis bis ñun nu ñuy jëf nu ñuy jëflantee nag kan moo gën a rafet li jëflante ak loolu nga xam ni moom la def ci kaw suuf fii mu naan amman xalaqa samawati wal ard wa anzala lakum min as-samaa'i maa'an fa am bihi bi zaata bahja maa kaana lakum an tumbitu shajaraha a ilahun ma allah bal hum qawmun yaadiluun hmm. gis nga ko fii mu naan xadaaiqa zaata bahja hmm. nee na ay ay ay jardin yu rafet hmm. yu rafet a rafet yàlla def na ko ci kaw suuf kon mi ngi wax ni kon ndekete li ci kaw suuf dafa dafa taaru waaw kon alxuraan ñi bàyyiloo xel loolu ñu xam ni kon li ñu wër lu taaru la nañ ko sàmm dañ ko war a sàmm waaw mu ni nag doomu aadama tamit te mooy ñetteelu ñenteelu point bi mu ni doomu aadama moo wutu suuf ci suuf si borom bi subhanahu mooy xalifa am fii ci kaw suuf. Mm-hmm. moo ko fi wuutu. Mm-hmm. kon euh, doomu aadama tamit dafa war a yokk fii maanaam doomu aadama dafa war tabax. Mm-hmm. waaye warul toj. warul toj waaw alxuraan noonu la gise gis nga wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa qaalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu ko wa nuqaddisu lak qaala inni a'lamu ma la ta'lamun gis nga ba muy waaj indi doomu aadama way wax ak malaaka ñu naan ko doo ndax da nga fay yóbbu ko fa yàq ak yooyu waaye mu ni doomu aadama la def muy ki koy muy kuutaayam ci kaw suuf. waaw maanaam moom mooy centre suuf si. Mhm. nga xam ni daanaka moo ko diriger li muy mhm. tuuti tuuti moo diriger suuf si moom doomu aadama. Mhm. waaw kon comme yàlla da ko fee teg nag ngir mu wutu ko fi comme ni mu ko waxee ci alxuraan. doomu aadama war na bàyyi xel. waaw mu wax ñu kuutaay googu noonu mu mu teg ci kaw suuf nag dañu fee teg nee na pour ñ Euh, tabax suuf si te bañ koo toj. bañ koo toj waaw. Mm-hmm. nañ tabax. Mm-hmm. tabax nag newul rek ci tabax ay bâtiment mm-hmm. waaye tabax ay garab ci la te mooy di ko jëmbat. Euh, tabax bàyyi ma nga xam ne am na fi njariñ ci la bokk. gis nga wa ilaa samuud axaahum saaliha qaala yaa qawmi abdullaha maa lakum min ilaahin gayru huwa anshaakum min al ardi wa staamarakum waaw suñ borom da leen e, def ci kaw suuf. sàkku ci yéen nag ngeen taaral suuf si tabax ko. tabax suuf si ci domaine yépp nag. waaw kon. ndekete borom bi subhaanahu wa taala mm-hmm. bu ñu defee ñu wutu ko ci kaw suuf dañoo diggal ni nañ tabax suuf si bañ koo mm-hmm. toj suuf si nag mooy di ko yàq rek te loo yàq dootoo ko defaraat mm-hmm. kon gis nga ne alxuraan nii ni la traité environnement wala nii bokk na ci ni mu traité environnement waaw bi ñu bàyyiloo xel ba pare wax ñu rafetaay bi nga xam ne moom na ci environnement bi wax nañu li fi yàqu tamit yéen a nag ni ñu ah comme nag yéen a wóotu borom bi subhaanahu wa ci kaw suufit nag Mhm. bàyyi leen xel li mu leen digal rek mooy ngeen tabax ko te bañ koo toj. koo toj waaw. Mhm. ci gàttal. Mhm. E, aay yi nga xam ni wax na ci environnement ci gàttal ab yu ci bëri ci domaine yooyu. islam kon daal. nu mu gisee sàmm environnement sàmm li ñu wër. nga xam ni bu su bëree ñu ngi koy dégg. ñu koy wax. ndekete suñu diine ji indil nañu ci ay solution bu yàgg. waxaan nañu bu yàgg ni. lii dañ ko war a def. nekkul mbir moo xam ne kenn ñu ko indil waaye mi ngi woon suñ mi ngi ci suñ diine ji te mosu cee jóg